pour jamarlo ak ki nga xamantene modi la de guerre voilà batay ñu ngi ni keur Siteu mbolo mi ñu ngi ñew nank nank nank par ben ben parce que instant bi heure bi jamagul fenn yi nekk presque 10 heures moins moins 9 donc mu nara don combat bo xamantene combat bu am solo lay don combat bu neexal neexal neex ci seen digënté ndaaw ndaxte ñoom ñaar ñëpp ay attaquant nan bu nekkoon bu nekkoon bu nekkoon bu nekkoon football ma ne kenn ki mooy kenn ki mooy mooy Neymar Neymar ndax ndax ndax ndax ndax ndax coow li muy àndal des fois waaw keneen ki keneen ki kuñ ko mën a tuddee sax keneen ki keneen ki ah xanaa ñu ne xanaa ñu ne ñu ne Brand non Brandao day day day kii sax alaan alaan alaan am na doole xam nga ah am na doole mais mais mais mais aussi li muy def xel la si àndal. <laughs> ay mi ngi noonu mi ngi noonu bala ay blague la woon gis ngeen ñu ngi nii si seen ay plat yoo xamante ne ay plat wu laax la ñu koy dugal kër kër ki nga xamante ne moo di moo di moo di moo di Siteu voilà Siteu voilà mi ngi noonu. instant bi génn nañ ci li nga xamante ne moo di palmarèsu ñaari mbër yi. mu doon ñaari palmarès yoo xamante ne yu riche la palmarès yoo xamante ne ku si nekk ay ay ay ay ay ndaanaan rek nga bëreel voilà mu ngi noonu voilà mu ngi noonu ñu ngi nii fi nga xamante ne moo di eh, jàmm gën ñu ngi nii fi nga xamante ne moo di jàmm gën jàmm gën bu Siteu jàmm gën bu yalmin bi voilà ba ñu ngi nii ñu ngi ni kër kër sita sita mu señ sidi Alquran voilà señ sidi alxuraan di leen fàttali ne jàppale na ndaw yu bari jàppale na ndaw yu bari fi nga xamantene cilinyi moo di jàmm gën ci li ñuy ci li ñuy ci li ñuy ci li ñuy def ci li ñuy dund voilà gindi leen te loolu lañ soxla ci sëriñ bu ne bu ne sëriñ rek nit ki loolu la nit ñi soxla si yow donc batay ñu ngi ni Kër sita di xar rek batay ñu commencé seen activité sang batay ñu ngi génn di def ay sarax premier sarax buñ fi njëkk gis mooy caaka rek sow instant bii nii après ñu génnee ay mburu ak chocolat xam naa ne glace yi génnagul mais xam naa ne léegi gars génnee glace yi léegi gaay yi génnee glace yi commencé parce que mbër yi xewal nañ ko lool lool lool li nga xamante ne moo di glace mi nga xamantene di glace mbër yi xewal nañ ko lol. lool lool xaw ma nag ban sëriñ moo yor glace yi fan yi mais fan yi daal bëri na ay client wu glace mi ngi noonu ba tey ñu ngi nii ba tey ñu ngi nii kër di xaar li nga xamantene ne moo di mbër yi génn voilà ba tey yéen gis ni mburu yi mburu yaa ngi di ñëwaat boobu tey ñu ngi saraxe ay mburu yaa di ñëwaat xam naa ni boy nañ koy joxaat bii mburu yi moom dara mburi yi moom diwuñu si dara mburi yi moom dañ ko jël nii rek sans sans def si dara teg nañ fi ay siog ay kaay ay saak ay glace voilà ñu ngi nii di saraxe ay ay ay ay ay ay pain voilà ñu ngi nii di saraxe ay pain voilà lamb nag nii lay mën a demee làmb ak lu muy àndal lamb ak lu muy laaj chaque moment ak sarax bi nga wara a sarax yi lu am solo la ci mbirum ci mbirum ci mbirum lamb sarax lu am solo la ci mbirum lamb voilà instant yi ñu ngi ni di saraxé mburu xamna ni sarax yi dina bëri lol lol lol lol ndax té la de guerre ba bañ démé kërëm lu mu wax né fa né lamb ji lamb ju mystique la dina ci saf sap non la ko la de guerre waxé donc xamna né xam na ne du yomb si moom mu ngi mu ngi mu ngi noonu mu ngi noonu diggante diggante Siteu ak la de Guiers tey dinañ gis lu doy waar la de Guiers nag nee na bu ko bu ko bu ko bu ko voilà mu ngi noonu mu ngi noonu ba lañ ko ñu dégg voilà voilà ba tey ñu ngi ni kër ki nga xamantene modi moo ngir leen lepp li nga xamantene dina fi xew tay ci digënté eh, Siteu ak la de guerre tay ñu ngi ak Siteu ba kërok muy genn ñu ngi ak Siteu tay Siteu nañu yendool ba kërok muy genn ñu and ak mom dem ba estat dugg biir estat wan leen lamb ji lepp lu fa am ci Sene News TV lépp tey fii lay xewee bu soobee yàlla incha allah voilà tey ñu ngi nii ba tey Kër Cité yéen a ngi gis noonu ki nga xamante ne moo di Cité war a bëreeg euh, euh, Lac de Guiers combat bu neex a neex a neex la nar doon ndaxte ñaari mbër yi dañoo xasante ñaari mbër yi dañoo waxante te nee nañ gor sa wax ja te tey Cité. dafa nara a bëreloo ki nga xamante ne moo di la de Guiers la te Lac de daa war a ñëw tamit pour wane boppam moom waaw te loolu la décidé loolu la décidé loolu la nar a def voilà ñu ngi nii yéen a gis ñi nga xamante ne moo di glace yi commencé na glace yi gisoon nañ ko fële nga xamante ne moo di kër Modou Lo gisoon nañ ko fële nga xamante moo di kër Eumeu Sène tey gis nañ ko fi kër gi nga xamante ne moo di kër Siteu doon ay sarax yoo xamante ne dañ lañ koy dégtal sëriñ yi dañ koy dégtal fan yi glace la jël glace fu ne nañ koy toj mais man kër yi ma dem yooyu gisuma gisuma ñuy toj glace yi damay gis ñuy teg glace yi noonu rek mais duñ ko toj mais fii dama gis ñu toj ñu toj ñu toj ñu toj ñu toj glace yi di si sotti ndox bu sedd fan yi moom làmb ji fan yi làmb ji glace la ak xorom ak fruit Lah bi tamit ma nga fay gis waaw fan yi moom sarax yi moom sarax yi am na solo sarax yi am na solo waaw bu ñu mënoon di sot di sànni di sànni journaliste yi tamit fruit yi ñu si ñu si ñam dina dina dina dina baax ku ci mel ne ñoom gàmmu xam nga ñoom ñoom dañuy soxla fruit yi ñoom ay célibataire nan voilà mi ngi noonu daal lamb daal lamb daal mi ngi noonu lamb lu doy waar la lamb ak lu nekk lu muy laaj buñ la nee saraxu lii la laaj nga jof sarax boobu bu nee saraxu la laaj nga def sarax boobu voilà ba tey ñu ngi nii kër kër kër sita di di di di di waajal gars yi ñu ngi naan sita nekkul gàlle bi sita nekkul gàlle bi sita bu nekkul gàlle bi ban gàlle la war a nekk wax leen ñu ko wax ñu sita ban gàlle la war a nekk ñii ñu ngi naan jak saw mais sita bu nekkoon jak saw est-ce que ay xaritam ñu dem jak saw ànd ak moom toog foofu voilà donc mu ngi noonu ñu ngi nii ñi ngi woo ay booy xam naa ne ay sarax nañ leen waaj a jox pour pour pour pour pour ñu lekk parce que gis naa ay boolu laax yu ñu dugal ci biir gis naa ay boolu laax yu ñu dugal ci biir xam naa ne booy yi ñoo koy lekk après ñu raxasoo ndox bi ndoxu raxasu boobu après gars yi dañ koy soxla pour ay affaire waaw làmb daal làmb daal ak lu mu laaj làmb daal noonu mu ngi noonu ba tey ñu ngi nii Kër Siteu gis ngeen booy yi ñu ngi nii di dugg ñoom ñoo war lekk li nga xamante ne moo di palaatu laax yi gis naa juróomi palaatu laax ñu dugal ko lii tamit gisoon naa ko kër ki nga xamante ne moo di Modou moo kër Modou gisoon naa ñu def ay saraxu laax booy yi ñëw dugg lekk laax bi raxasu raxasu bàyyi foofu ndoxu raxasu bi gars yi am nuñ yi am nuñ si def tey tamit gisaat naa kër ki nga xamante ne moo di Siteu voilà voilà batay ñu ngi ni kër sita ñu ngi ni kër yal yalmin bi mi wara bëre ki nga xamantene modi la de guerre la de guerre di di ndanan di kat di di di ko xamantene ko am experience la di len wax ne sita mu ngi fi ci kër gi la naan information sita ngi fi ci kër gi nekul jaxsaaw nekul fenn mu ngi fi ci kër gi parce que fi la cité di départ départ am nañ ci information yu lera lera lal a laal ak mom nee nañu Siteu fi ci kër gi demul jagsaaw demul fenn cité fi ray ngembo voilà ñepp ñi naan cité mu ngi jagsaaw ñu ngi wax lu ñu xamul Siteu ngi fii kër gi fi la cité di départ utali esat wala bëre ki nga xamantene modi la di de guerre waaw ñom nee cité bu nekkon fenen ñom ñu dem and ak mom ñu dem and gis ngeen boy ñu ngi ni tok voilà boy yi ma leen doon wax par rapport ak saraxu ñi war a lekk laax yi ñu ngi nii toog ay booy ay booy ñoo ko war a lekk après raxasu ndoxu raxasu bi nag xaw ma après luñ koy def waaw dem nañ kër mbër yi ñu dem yëpp presque gis nañ ko fa kër Modou gis nañ ko fa kër ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène aussi gis nañ ko fa tey ñu ñëw kër ki nga xamante ne moo di Siteu aussi gis ko fi voilà di xamal ne euh, euh, Lac de Guiers ak ki nga xamante ne moo di Modou Lo dina doon combat bu neex

lu naan làmb garab ci kaw lay fekkante tey ñoom ñaar dinañ dinañ dinañ dinañ laale dinañ laale parce que grand contre dafa xew grand contre petit dafa xew li koy waral mooy ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène jël na kii di kii di kii di kii di Sa ñu war a bëre incha allah ki ka taxawal di Baye Ndiaye bu Alburax Events dembo def nañ premier face to face def seen signature contrat sax laay wax parce que du face to face dembo def nañ seen face to face bu njëkk. voilà mu ba ba tey ba tey ba tey ñu ngi nii ba tey ñu ngi nii kër kër kër Siteu booy dóor nañ laax bi vite fait booy dóor nañ laax bi vite taf taf nañ ko def même pas deux minutes booy dóor laax bi voilà booy booy booy namoon nañ laax lool waaye booy namoon nañ laax lool lool lool lool. booy namoon nañ laax lool lool lool waaw beneen yeneen boole ngi ñëw sax yeneen boole ngi ñëw. tey lu gars yi indi booy dóor ko tey booy indi nan mburu booy dóor ko booy indi petit pois booy dóor ko gars indi mburu dara booy dóor ko gars yi indi nan laaxi booy dóor nañ ko voilà mu ngi noonu <laughs> voilà batay ñu ngi ni kër sita boy instant people bi mi ngi commencé ñew nank nank gaa ngi commencé bari nank nank ni ñaa ñew ni nit ñew di leen di di di xamal ne di leen xamal ne tay lamb ju nara day war mo fi nara am tey fële ci arena nationale ci diggante Siteu ak ki nga xamantene modi euh di euh, de guerre mu don combat bu nara neex mu doon combat bu nar a neex si diggante ñaari mbër yi mu doon combat bu nar a neex si diggante ñaari mbër yi ndaxte Siteu day ñëw bëre lu mu am jël lu mu am jël voilà voilà mu ngi noonu yéen a ngi dégg booy booy yaa ngi